askan wi yeewoo ci réewum Sénégal amaat xar kanam gu soppeeku lool lépp rek jëmale ko ci ndaw yi jëlaat gaal gi ngir bëtt yoonu géej gi ba tax jamono ji ndaw yu bëri di ci ñàkk seeni bakkan ku ne ak na mu ko gisee xalaat biñ ci amee sëriñ bi di ci joxe ay kàddoom di xam xamle ne dem ci gaal yi du solution ak it di joxoñ baaraamu tuuma état bi ndax li leen war ci ndaw ñi defuñu ko. état bi moo doxul la ko war waaw su doxoon la war lii du am. la mu waroon a doxal li muy digg askan mu di ko def daa diggante li muy diggee defoo dara moo waral xale yi fippu di def li ñuy def am na aw naqar lañ am suñu amoon bànneex duñ def li dañu amoon naqar naqar bi mooy war nañoo liggéey di ay ndaw ay ndaw war a tedd war a liggéey te gis ñu fu ñu liggéey sëriñ bi di wuyoo ci turu Modou taala di ko lu ak it di ñaax parents yi ngir ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi jàpp nañ ne gouvernement bi am na ci responsabilité bu waaye itam parents yi itam kenn jiituwu leen ci xanaa ñu gën a soññ waa ndaw ñi bu baax a baax rek ci li nga xam ne si moo di liggéey ndax itam kenn xëyul am kenn ku nekk la nga jàpp nga góor góor góorgóorlu ci bu baax a baax waaye nag yooyu yëpp dara jiitu ci maanaam njàng njàngaleem Serigne Touba ndaxte ñi nga xam ne si tey jii jàng nañ dëgg-dëgg jaar fañ war a jaar duñu yàkkamti bay dugg ci yenn yi ndaxte eh, boo xoolee fi réew mi toll koo gis muy dox rek am na loo xam ne si mi ngi koy doxaale mais déw doonul na loo xam ne si rek dañoo war a ne euh, faaw ñu tekki ndaxte am na ñoo xam ne si tey ji fukk ak ñaar wala ay euh, benn ak benn lañ doon góor góorgóorloo ba am li ñu am tey moo xam ci ay taabal lañ commencé woon moo xam ay mbuus lañ yoroon di jaay ba tey jii ñu doon ay milliardaire wala ay yeneen. Basirou la gis-gisam wuuteeg lool ñeneen ñi muy xam la ne ndaw ñi niñ leen war a taxawoo dafa des loole nag bokk ci di tax ndaw ñu bëri di bëtt géej gi ngir teraanga. njaboot gi dañ leen di booy xool dañ leen a xaw a taxaw bi ñu leen war a taxaw dëgg daal da dafa daa des looloo ndax wax dëgg yàlla nit bu tolloo am na foo xam ne dafay toll day sës mooy waral boo gisee nit dugg ci yenn yi ba leneen di ko ci fekk ah, gis-gisam fa mu gisee day sëri looloo tax sëriñ bi uh, di ñaaw lu ni mel uh, di xam le ne uh, li ñuy def ci yoonu géej gi buñ ko defoon ci seenum réew teraanga man leen cee fekk. ñi koy def ñëpp xaj na tekki rek lañ bëgg waaye Sénégal gi ñuy bàyyi ko di dem bitim réew yaakaar naa ku fi toog gëm sa bopp bañ a yàkkamti teraanga ji ngay wuti fi bitim réew mu ngi Sénégal gii toog wax boo fi toogee ñaxantu bañ a xeeb dara di teel a xëy di guddee wàcc. yaakaar naa suñu borom dana la suturaal état bi am na ci responsabilité waaye nag am na ci loo xam si ci ndaw ñi la ndax 400000 yi ngay liggéey wala 300000 yi ngay liggéey jàpp naa ne tey boo duggoon ci marché Ocass bi jënd ko marchandise daaj taabal toog ci ci taaba taaba balaa at wala 6 mois dañ ci gis résultat bu nañ loo xam si ni dañ ci mën a soox ba mu jëmale la kanam bu ko bis dana ñëw sax tey ku la joxoon visa tegal la avion ne la nañ dem sax. man nga ne ko déedéet ndax am na ñoo xam ne ñu ngi fii toog ci dëkk bi demuñu fenn mu mel ni nag jamono ji yoonu géej gi ndaw ñu bari ñu yeewoo ci réewum Sénégal jëlaat nañ ko ba tax ñu bëri di ci ñàkk seeni bakkan gis-gisu askan wi di gën a ñaaxaat parents yi ngir ñu taxaw leen ci na mu gën a waree ak it di xam le ne du tukki rek mooy tax a tekki